deux minutes mu dugg. Ah. balaa ñuy tàggatoo. Pape ah. de souci. Euh, Ndeye Sow ce <laughs> <laughs> <laughs> que duñ joxe baat yi. gaa yi gaa yi jëlaale ko. ne euh, Pape dafa xiif bu ko defee nga. tafal micro bi. nga tënk rek waaw. allo imaam. waaw. ñu ñu may la rek nga. bu fekkee dafa am beneen réaction bay def. waaw réaction bi daal bu kàtt la. Mhm. mooy ni ñu ngi ñu ngi wax président de la république ne ko. dañ ko dañ ko yëkkati woon dañ ko ko réew mi. Mhm. te bi ñu koy jox bi ñu koy jox réew mi. Mhm. dafa am lu am solo loo xamante ni mooy li répété wu tey jii moo doon dox. waaye mooy ni Abdoulaye Wade. dafa bëggoon a def li ñoo tuddee dévolution monarchique. mooy naa fi jógee sama doom toog. Mhm. am na photo bu ma la yónnee. gis naa ko. pour wan la ne la man nekkuma koo xamante ni dañ naan bu allahu akbar jotee nga dem ca mimbar ba. Mhm. bu xeex ci mbedd mi ngir sa réew jotee. ngay yoxos wala ngay wut loo man bokkuma ci genre boobu bu dëkk jotee dañ koy wax keroog Abdoulaye Wade ba muy def lii comme Macky Sall def. Mhm. maa njëkk a taxaw Alioune Tine gisoo ko noonu. bañ ko dóoree buntu kër Farba. ba bopp bi toj. Ismaïla ah, mën nga mën nga diffuse photo bi bu ko defee ñu gis ko. ay ca Iman bu dul woon bu ak man kon musiba dal ko. Mhm. keroog maa ngi fekk président Macky Sall maa ngi ko fekk biir kër gi sant euh, nu ñu koy tuddee ti suñu mbokk moom mu yal ko yàlla xare aljana mhm. euh, te mu jiite xaadiriya mhm. euh, yaay bàyyi ndaw si ñuy wax rek ci ah, affaire bi ya papa yi maître Dior Diagne. Mhm. maître Dior papa yi maître maître Dior mais mais Dior xaw ma Dior Ndiaye xaw mhm. góor gi sant Diagne. fa laa daw fa laa yenu euh, nu ñu koy tuddee te Alioune Tine yóbbu ko ca kër googu sauvé ko. booba yi mu ngi ci biir salle ba climatiseur yi di ko ëpp. ñëpp nga ca naajoo di xëccoo ko xeex. Mhm. donc c'est des yoo xamante ni ñun démb fi la ñu fekk ñun tëbu ñu tëb xëy na lapp xëy na cëpp. ñun bu ñu défendre Ousmane ko dañ ko teg ci sariya teg ko ci li yàlla santaane su du woon ak li yàlla santaane duñ ci ubbi suñu gémmiñ xam nga yàlla lu wax hmm. daf ni la yow yow moomu di Abdou Khadr boo fekkoon tey ndaw soo si dend ak yow ngay njaaloog moom hmm. bu bu ko bu ko bu ko saa wolof moomu gisee seen ko génn hmm. taxaw génn ci mbedd mi ne da doon njaaloog moom saa wolof lañ di fudd ndigam dañ ni la wutal ñeenti témoin yoo xamante ni bu ci nekk doo ko fekk da nga koy fekk da nga koy jël kii mu ñëw fekk ne sa digganteeg ndaw si yéen a ngi mel ne gën a kuur. Mhm. nga bàyyi ko fa dem jëli keneen ñëw won ko ko nga bàyyi ko fa jëli keneen ñu won ko ko te du ñu ñëw ñoom quatre en même groupe. Mhm. boobu preuve ku ko am xëy xëy rek ne doomu jàmbur da ngaa dem fële da ngaa tëddee doomu jàmbur da ngaa nangam da ngaa génne ndox meeg day tëddee indi ñu ratt sam ndox ak yu ñàkk teggin yooyu. te gis nga fii bu nëbboo bu feeña fi nekk lu nëbbu ak lu feeña fi nekk yàlla nee na ku suturaal doomu aadama bu fekkee ni sax doomu aadama ba dafa foofu bu ko yàlla di wax man satara euh, bu ko yonent bi di wax man satara musliman satarahu laaw ku suturaal doomu aadama yàlla sutura ba ñu commencé xaw yu sutura yi ak di sos ci biir réew mi la réew mi dellu gannaaw ba kenn amatul respect mhm. ñoom ñoo fi njëkk a taxaw daggal sëriñ si damay tudd tur ki fi njëkk a taxaw fii dégg ci euh, ñu ngi koy tuddee ci benn benn responsable PDS mu dem kaso di meeting di wax Serigne Abdoul Aziz Sy Al lu mel na xame moom mu dem ci a benn rajo fii à place bi mu ko tudd moom tamit walbatiku di yàq Abdoul Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine lu mel na xame ba mu fa jógee dañ ko nommé ministre kon désordre bi am ci réew mi nañu ko nangu te gëm ko ni ñoom ñoo ko fi indi loolooy law ba léegi law googu muy law ba léegi nag. dañu sentir ne askan wi ñoo jóg pour fajal seen bopp li bul billahi maa ngi lay giñal ni bu leen wóoroon ni tey élection yi ñuy dem insha allahu taala le vingt cinq bu leen wóoroon ni dañuy gagné comme na ko Boun Abdallah Dionne def de passage maa ngi koy nuyu yëkkati loxoom bi ne juróomi candidat lañ cinquante huit pour cent la ñuy gagné bu leen wóoroon ni loolu la ñuy gagné du yàq élection yi waaye wóor na leen ni man maa wax lii te ku te ku indi kaamil mu dóor ko waat ko wóor na leen ni bu ñu demoon élection dix heures onze heures midi ñu wax bu ñu xoolee poubelle yi xam kan moo mën moromam. waaw mhm. ah, mais loolu taxul nag nga yàq ba benn bi ci des xeebel gi ci réew mi nañ ko dindi nañu dindi xeebel gi ah. te dañ ko def ci affaire xeet ci affaire askan ba léegi Sénégal deme na noo xamante ni doo comprendre c'est tukulóor bi dafa war a nawloo séeréer bi séeréer bi dafa war a nawloo joolaa bi. joolaa bi dafa war a nawloo eh, ki nga xamante ni olof la wala lu mënti doon loolu la xam démb mais loolu réer na fi léegi fii nedd ko bànd moo fi am léegi te loolu dafa war a dañ li fi loolu dañu nag du ñu dem fenn. d'accord moom maa ngi koy dégg soxna si de passage maa ngi koy nuyu. Mhm. mu ngi wax lu am solo ci waxam léegi ne nañu fóot xol yi nañu ànd nekk benn d'accord kooku ñëpp a ko war a woote ñëpp a ko war a jëfe ñëpp ci war a dox ñëpp ci war a yeew ñun nag moom fu mu waxee danañ ko déglu moom moo sañ a taxaw ne du ma déglu ay imam yoo xamante ne dañuy protéger Ousmane Sonko danañ ko protéger parce que bu koy protéger man sama baat ca kaw maa taxaw fii ne leen dem naa toog ak moom ne ko lii ndax loo ci lii ñu la ji ndax nekk na wala nekkul mu jàpp ba sell moom Ousmane Sonko julli ñaari raka génne téere kaamilam di gën a garaaw nag mu génne ci saar ba nga xamante ni ba loolu xewee ca doomi Omar saar boobu la génne teg ci loxoom pour wax la ne la du jaahil ku ku jàng la kàpp ci loxoom ne ma imaam ma ne ko labbeek mu ne ma billaahi wallaahi wa taalaahi mosuma séq ak ndaw li lu ndaw si yàlla xaraamal et alors ki la def loolu ngay jullit muy jullit nga wëlbatiku nar a sañ a dem ci rajo di wax safaan bu mel noonu boo tasee ak yàlla loo koy lay dañu bàyyi caaxaan. Mhm. te teg ci réew mi ci yoon teg ko ci dëkk baatere carte gi ki yàlla doxal incha allahu taala élection yi jëm ki yàlla dogal ni kii mooy ki nga xamante ni moom la askan wi tàmm te moom la fi yàlla teg waaye ñu rafet ci ñu rafet ci gis nga jëmm ji ngay génne nii du koo xamante ni day fayontoo amul jot ci sax kii du rey ganaar du rey ginaar am na loo xamante ni bu jiitoo ci yow sa dënn alquran jiitu ci sa dënn leeru leeru gis nañ fi ñoo xamante ne bu ñu demee di jàng xasaay bi suñ Tuubaa dañ koy dammat ak di ko yàqat gis nañ fi ñoo xamante ne bërki dem xulawu sula bi fal xulawu sula bi naas dañ koy jaxase moom fa muy tibbe ay sóoratu Yuusuf sóoratu Ankabut sóoratu Ali Imran de moo dul place ah? man na ñooñu mën nañ alxuraan de fañ ko taree foofoo nanguwul alxuraan merci waaye ñun ñun dañuy nekk jullit yoo xamante ni dañuy jaamu yàlla gëm yàlla te nee na képp koo xamante ni gëm nga yàlla na ngay rafetal sa njortu sa digganteeg nit nga jàpp nit waa nit ku mos a man xam nga lu may nawee jëm jëm mooy ni. Hmm. ku mën ci ku mën ci doon ci yéen ñi toog ci plateau boobu tey bu ñëwoon ni man sama loxo ngi nii yëkkati naa ko fukki at ak juróom rekk liggéey naa ko mosuma luubal ñaari dërëm mosuma luubal fukki dërëm ak juróom wëlbati ko joxañ ne yi mii mosta luubal fukki dërëm yu mu moomul. Hmm. Euh, am na ko jiite Masalikul Jinaan. Mbackiyou Faye. Mbackiyou Faye nee na contrôlé na ko. mais ku jub la gis moo taxaw di ko seede ñëpp di ci dégg ba ba fi may tëjee nag te bàyyi yi leen te ñaan jàmm yàlla dolli sutura mm. te ñaan yàlla delloo siwaat xelu ñi nga xamante ni ñoo tëgg lii ba indi fii lii yàlla delloo siwaat seen xel delloowaat leen ci dëkk ma ni kii ci boppam dem na weeru koor di audi di di di di kii nit di def li ñuy def comme ni mu def mbàkk yi fay ni koy tuddee ci euh, xaw ma euh, di audit di auditer nit contrôler mhm. waaw di contrôler nit ndogu jot sama baat ca kaw maa ngi koy wax ñëpp dégg ndogu jot Ousmane Sonko laa wax génn dem ci butigu pël Fuuta bi ci koñ bi jënd ñetti doomu tàndarmaam ak ndoxam dogu ja àbb ko sajaada julli delluwaat ca kaw nga xamante ni moom la doon moom la doon euh, moom la doon contrôlé bi ko xaritam yi di laaj ne ko lu tax ndogu woo ci ndogu li te kooka def daf ko defal bernde yu ngande lal taabal joo xamante ni yàpp wu dul yàpp ñu koy wu ñu xaraamal nekk ma nga ca ma nga kii ba ak i tàndarmaa ki yëpp mu ne damay bañ lekk ko corruption dugguma ci wala ma am lu may rusewaa ji ba li ma sama réew sant duma ko def ñun xam nañ ko bu baax a baax xam nañ jomaay bu baax a baax ku weddi jomaay na dem impôt et domaine mu woo Lamine si damay joxe tur ku weddi jomaay na dem eh, eh, eh, impôt et domaine mu laaj Sidi Lo ne ko kan mooy jomaay ndax jub na wala jubul ñun xam nga lu ñuy séntu ci nit jub loolu lañ séntu woon ci président Macky Sall bay jël réew mi teg ko ci loxo kon bu demee ba jeexal na gore xam ni def na fukki at ak ñaar fukki at ak ñaar ku ko def waay waaye demal nga dellu ci yeneen euh, ñu koy tuddee ci président France bi nee na ko ni ñëw. moo am yeneen yoo xamante dana ko dénk yeneen a ngi fi mais tey ji yow li nga li li li nga doon bañ ci Abdoulaye Wade moom ngay ko wala lu ko raw sax parce que Abdoulaye Wade defu ko nii ba pare téye doomu jàmbur dénigré ko depuis ñetti ak nga koy topp mënoo am ci moom profil leer ñetti at nga koy topp di ko jéem a tooxal yàlla ne la du noonu du noonu du noonu léegi dem nañ ba sës ku yàlla rëddee benn yoon nga gome mu rëddaat ñaari yoon nga gome mu rëddaat ñetti yoon nga gome wala boog muy rëddaat ñaari yoon nga gome balaa muy rëdd ñetti yoon da lay gome ba pare soog a rëddaat hmm. nañu delloo siwaat xel yi te xam ni lii da du du ma ni dafay jeex de bokkumaak ak ci naan ci ñu naan dafay jeex dañ ciy jaamu yàlla hmm. moom de wax li mu wax lu leer na ku ko mën a wax nag te mu nekk ci yow na ko indi def ñu ngi ñaan ngi ñaan encore une fois ñi nga xamante ni ñoo gis nga yàlla la mu xaayinatul en une ma tox fi sudur yàlla nee na li seen mbaru bët yi di rafet ak li ngeen nëbbu ci seen biir dënn yi man yàlla maa leen ko gën a xam gis nga lii ñuy kompaloo nii ak di ko jaar ci suuf wallahi wa bi sarafil quran la maam Abdul Aziz Si Dabba waxoon ci deewu Lamine Gueye wax ko ci deewu maître sëy loolay jëllu si waat ku ci dugg wala nga def ci benn acte boo xamante ni day won ni xañ nga askan wi loo xamante ni njariñam la xañ nga Afrique loo xamante ni njariñam balaa ngay dee da ko layu sa borom te yéene wuñ kenn ci suñu réew bu dul suñu réew sax ngay génn àdduna wala ngay am benn problème boo xamante ni da koy jàkkaarloog sa kanamu borom nañu delloo si waat xel dellu ci suñu borom dañu delloo si waat xel yi te dellu suñu borom. loolu daal ci gàttal Abdou Khader maa ngi lay sant di la gërëm di sant tamit borom kër gi. Mhm. wala ki yàlla def mu jiite kër gi di sant ma dem Ndiaye. Mhm. Eh, di sant ñi ci plateau bi yëpp di ñaan yàlla yàlla na yàlla dolli ñu jàmm ak sutura. ak ak ak barke. Mhm. Eh, li ñu namm ci réew mi yàlla na fi réew mi doxee sax defaru incha allahu taala te am nañ ci yaakaar pétrole bee gaz bi ñu naan dafiy feeñ yàlla bu mu fi indi coow loo xamante ni dañuy diviser wala mu ñuy indil problème xel yi yàlla nañ dellu si teguwaat ci jàmm bu fekkee ni wax naa luy déranger nit na nit ki jéggal wa ma shahidna illa bi ma alim na eh, yàlla na yàlla saxal jàmm jërë ngeen jëf ñu fanaan ak jàmm. jërëjëf merci beaucoup imam euh, Khalifa Babacar Ndiaye nekk euh, euh, adjoint au à la commune de Mermoz Sacré-Cœur.